li si yéene kaay kaa bi jëre kaa de mi ngi ci élection présidentielle bés bi la journal 2024 de wóorul ndax ñoo ngi jëm ci élection yi nga xam ne président Macky Sall bokkam wóoragul xalifa Ababacar sàll bokkam wóoragul Ousmane Sonko bokkam wóoragul may sa wadd bokkam wóoragul yéene kaay bi naan bu doon football de dañuy forfait bés bi la journal bu leen fàtte parrainage bi nga xam ne mi ngi kale yenn candidat yi nga xam ne samp nañ seen ndënd ba noppi turbine yéene kaay bi naan teg fi mbiram parrainage ak lii la président Macky Sall bëgg a jël nelawal opposition bi te ne sarax troisième mandat maa ngi yéen a kaay groupe des médias naan opposition bi bu ñu boolewul sànku dikkal na leen ak mbir yi fi mu toll fa ñu war a boole seen doole xeex ñaar yi di code électoral bi nga xam ne mu ngi sëndaxal candidat yi ak parrainage bi nga xam ne mu ngi éliminer candidat yi te bu leen fàtte ne article L 31 moo tax ba Khalifa Ababacar Sall ak kii di Karim wàdd bokkuñu ci élection yi te article L 31 dafa ne képp ki nga xam ne dañu koo tëj ci lu àndul ak sursis wala sursis dal di ëpp benn weer waaye itam mu ànd i amande turbine yéene kay naan mbaa ñu tëj la ci yii sàcc wala escroquerie abus de confiance trafic bu xeetoo ko cinébari détournement ci ñi nga xam ne ñu ngi ci agence publique corruption wala trafic d'influence bu ñu la jàppee ci contrefaçon ci pen yi nga xam ne dafa laal juróomi at bu ñu la ci tëjee ci lu tolloog weer taq nga ripp pare gu ma de ñi nga xam ne dañu leen tëj diiru ñetti weer ci kaso yu àndul ak source tàkk lu ëpp juróom benn weer te ànd ak source fa zalika de loolu nag mooy L30 beneen article bi nga xam ne mu ngi cëxat cëxatee ay opposant turbine yéen kaay naanu ñu nekk ci dëkk bi nga xam ne saa su ne mën ne naa collé motif ba daal di la si tëcc te opposition yi ne du ñu boole takku ba dëgër indépendance yéen kaay naan président Macky Sall mu ngi wéy ci troisième mandat waaye ay ONG yu nekk ci nendu Afrique ñu ngi koy wilu pande ñoo ngi naan yeneen président Sall mu ngi wutu yeewoo ma te loi bi nga xam ne moo koy fal mayet ko ko yéeni kaay bi naan africain ya nekk ca ONG ba dee ñoo ngi naan président Macky Sall de bu defee loolu mën naa indi ay tension ak i xeexoo ka ngiroo ka ŋaayoo ca réew ma ba yee fitna comme la amoon ca Guinée ca Côte d'Ivoire ca Togo ak ca Tchad te foofa la yeewoon fitna mooy seen njiit ya fa ñu respecté na seen constitution xeexoo yooye nga xam ne amoon na ca réew yooye juróon na fa ay coup d'état militaire nag tax na ba ONG ya nekk ca ngi naan Sall Ngaare fexeel nga waxtaan ak ak sa askan te xamal leen li constitution bi wax mooy respecté ñaari mandat yi nga xam ne yoon may na la ko le point dal di jox kàddu Omar Sow conseil spécial président Macky Sall mi ngi naan président Macky Sall mi ngi liggéey ndax xalangu dajul suuf mu ngi liggéey bu baax te opposition bi dama bëgg seen xel dal te ngeen may ñu ñu mottali Sénégal émergence bi nga xam ne président Macky Sall am na yéeneem ci deux cinq yéene bi naan jàmm ci réew mi de kilifa diine yépp ñu ngi koy sàkku di ko jooy te naan réewum Sénégal ku ko bëgg a taal sànku tribune yéene kay naan opposition bi bu ñu takkul ba dëgër lépp dina fa jaaree tàbbi géej te mbiru Karim wadd moo raw néeg bu amut lamp l'observateur naan loo ci xamu dee partem doxatul bu doon malaat mën nañuy wax ne PDS mi ngi ci coma yéene kaay bi naan en tout cas daal seenub candidat kenn gisatul ko ubbil yéene kaay yi bés bi la journée élection présidentielle 2024 leeragut ndax boo moytuwul Ousmane Sonko du ca bokk yéene bi mi ngi naan Ousmane Sonko coom ak ak Adji Sarr dañoo bëgg a taxawal ab chambre criminelle spéciale ngir àttee fa opposant ba tribunal mbaadu fa ñuy médiation sursu aanaan porte parole des na ma ngay yedd Ousmane sonk ci jàmm Ousmane sonk naan lépp li ma digal dinaa ko appliquer à la lettre waa grand place naan Mamadou Lamine Laye ma ngi koy xamal naan ñun ay robu avocat la ñu solal jàmm ak dal ci suñu réew amuñu benn par parlantoo suñu devoir rek la ñu def te naan Ousmane Sonko ñëw di ko témoin naan Ousmane Sonko mi ngi naan président Macky Sall yéene mooy buggul ma bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu dëtmal te ku bëgg jàmm da ngay bàyyi tooñ kon nañu ko dooree ci moom di njiitu réew mi yéene kaay bi naan kilifa diina yépp ñoo ngi wax de ndax politiciens yi ñoo ngi dégg tribune sport naan Aliou Cissé de nee na puusul paasut la fi bëgg a andil tribune kaay naa na dem na Barsàq ndax toog na dal neen ay màgget yu ñuy violé mag yoo xam ni ay xale yu tuuti ñoo leen di sàkku te loola de mën naa indi benn traumatisme boo xam ne maara del yi ci ñoom yéene kaay bi naan ca Louga benn soxna bu am juróom-ñett fukki at ak ñaar moo joxoñ ab xale bu góor na da koo sàkku ak lu mën a am daal yal na ñu yàlla defal jàmm